bu ñu ñëwee ci ci ci politique bi laataa ñuy ñuy jeexal Ousmane Sonko gis nga ko ci ci mbir yi parce que ñom nee ba légui Ousmane Sonko mo moy seen candidat ndax gis nga ko ci. Euh, nañu bàyyi nax seen bop déggu dégguma. nañu bàyyi di nax seen bop hmm ah. candidat nu mu nekkee candidat. Ousmane Sonko nekkul man je suis patriote. hmm ñepp xam nañ ko. Sonko je l'aime bien ñepp xam nañ ko. lu ko laal laal ma.

nee nañ Sonko mooy seen plan A mooy plan B. xanaa Pastef c' est pas un esprit. ah loolu la ñuy wax de. Hmm? wala tout ce régime à Ousmane Sonko. ça c' est une au parti. Ousmane Sonko na ma désigné candidat. yow mii man na ma désigné candidat rek bu newoon à partir de prison léegi jox naa leng yi parce que moom xam na du ma ko war. Hmm. su ma nekk président ma ne ko ñëwal jël man je peux pas diriger le Sénégal j'ai pas les j'ai pas la tête pour ça. da ngay gagné ne ko ñëwal jël. barke Sayyidina Muhammad dañ may wootal ma gañe ma ne ko ñëwal prêter serment indil ma alxuraan bi. indil ma fukki alxuraan sax ma waat ko. ba ba patriote buñ la déggee duñ la la jox. ma ne jox ma kii bi na na wax loolu rek mu bàyyi man ma gérer na ma wax loolu man financièrement man mun naa dépenser sama bopp sama hmm. campagne. Hmm. indil ma cinquante cas yi nekk foofu je gis nga bii moom. xam nga bii moom dinduñ ci benn aaya parce que c'est scellé barki alxuraan na nee rek kii mooy sama candidat xoolal barki alxuraan mm. mun naa def dépense man ma def sama campagne na nee rek may candidat Pastef ma gagné barki Seydina xam moom mooy prêter serment parce que man xam naa ni ñuy wootal moom lañ moom mm. te keneen ku mu def ci parti bi nag war ko parce que loolu mooy politique. keneen ku mu ko def ci parti bi. dina ko da koy war. dina ko war nguur.

lu mu wax rek laay wax. su ma paree ma ne ko ah, jëlal la ngi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke alquran bu dee benn nit lay wóol maa ngi ni man musuma bëgg politique musuma dugg ci politique mais bii moom bu dee pour loolu rek pare na. pour génne ko ci kaso bi. mooy nekk président ko ci kaso bi jox ko jox ko jox ko mu nekk. laa ilaaha illallah xanaa xamoo même bu dee ci constitution parce que xamoo nu mu tëralee bu dee ci constitution munul waat man waat. Hmm. bis bima waté le lendemain. Hmm. lay def ben loi. Vous xamné dit da nga mën a comme ni Senghor defoon. damay dissoudre sa assemblée bi parce ni ñu nangu woote loi bobu hmm. damay dissoudre assemblée di ko ñëpp ñibbi sen kër. damay créer ben loi né le président de la république en cas d'empêchement ou bien d'incapacité, sera remplacé par le vice euh, président de la république Tu as fait man. je suis vice président. bu ma pare bis boo ko ndomee signé def ko vice président automatiquement laay signé sama démission je suis incapable. moom mu doxal il peut compter sur barke alxuraan laa wax ma mu ngi nii kay man yow tamit lu ma jot a sama bàmmeel bi dinaa ko yàq. Ah ngir euh, histoire de de nguur. bu ñu ko déggee dinañ ci taxaw. barke Seydina Mohamed. waaw kon mi kon mi ngi noonu. moom. <laughs> looy tëjee docteur. <laughs> ba ba Sonko dafa baax mi. Hmm. Sonko dafa bax ci réew mi Sonko. Hmm. dañ ko war a ñam. ñu ko war a ñam de ah? waaw. Macky Sall sax bañul ñu ñam Sonko. Hmm. nee naa wax naa ci benn émission bi nee naa Macky Sall n'est pas contre Sonko il aime trop Sonko parce que Macky Sall dafa bëgg a dëgg. Hmm. Macky Sall dafa bëgg ku xarañ. Macky Sall dafa bëgg guerrier bañ na ko ba du liir ba liir bu dul l'art de la guerre comprends mm. moom Sonko Sonko kenn mënu ko bañ ku yàlla bëgg ce kan mm. mais problème bi c'est si Sonko est là ses arrières qui va le surveiller mm. ses amis ses compagnons Le problème bi déjà tout le monde sera euh, va quitter système bi yëpp pas dañ comment il va faire avec les autres C'est moom moo ko wax nag Sonko wala wax moo tax mu nekk nii. loolu wax loolu bu ne ñëppay rendre compte loolu mënoon na ko noppi. xam nga gis nga gis nga moo mooy indi boppam problème. Hmm. mais man xam naa Macky Sall dafa bëgg Sénégal je i il aime cette jeunesse Macky gis nga ni mel ni man ñi mel ni man ñoo koy daaneel. Ah, des jeunes sénégalais ambitieux di defante ak tubaab yi. Hmm. par la connaissance ñi man ñi mel ni man la il est fier d'avoir ce potentiel dans son pays je te jure hmm. gis nga Macky Sall bu jëloon trois bu defoon troisième mandat élite yëpp lay génne booster leen actuellement xam nga deuxième mandat bu ko defee yaa ngi nii di naxasante ak di naxa naxante ak mm-hmm. français yi tout ça mais

Mhm. il n'a rien fait de mal. il n'a rien fait si c'était son coup il allait faire la même chose il allait faire la même chose. d'accord.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 xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax